gonay parcelle bii di Modou Xarañ Lo jot na amati ndam si combat bi ko opposé woon ak doomu Falaye Balde bi di amaa Balde ginnaaw lewtoo bu selaw si début combat bi Modou Xarañ Lo jot na jàkkaarloo guney Pikine bi si ay simili ñu daal di dóorante supporter di yuuxu ku ne naan sama mbër mooy daan kii di Modou ànd ak dal lu ñuy woowe une maturité sportive moom Ama sa beneen boor supporter yi waa Pikine di yuuxu Ama yee Ama yee moom Ama ba ñu bëree lu toll si lu toll si ñaari simili si la def quatre appuis après une pose ñu daal di xool yi nga xam ne moom mooy VAR VAR nekk mbir bu bees si wàllu làmb fii Sénégal Modou Lo arbitre daal di koy jox ndam ne ko yaa daan yaay gàdduwaat li nga xam ne mooy siège roi des arènes si fàttaliku combat bi enjeu yi dafa yaatu woon yaatu ginnaaw ba ñu yóbbee li nga xam ne moom mooy jàkkaarloo bi fële si dëkk bi naan Gambie Modou Lo tëggoon nañ ko combat bi de 2019 à 2023 record bu njëkk si combat bi ni mel si wàllu làmb si fàttaliku également ki nga xam ne moom mooy Modou Xarañ Lo war na jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Baye Boy Niang nekkaat également